C'est vrai que le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Mais il va quand même, après avoir perdu quelques jours, au cours de ce camp électoral, il va faire ce qu'il sait le mieux, déranger les autres, faire du type tank, montrer la vérité aux Sénégalais, dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Donc aujourd'hui, 30 octobre 2024, Tamba a vibré. Cette charmante ville, la belle ville de Kona a vibré au rythme de la vérité, de la dignité, de l'honneur, et les juges, je veux dire les juges du tribunal de grande instance de Tambacounda, ont essayé de rendre justice, de dire le droit. Et ils ont ordonné la libération immédiate de Bougarier Dami. Immédiate. Aujourd'hui, cette nuit même, il doit pouvoir, avec la caravane de l'intercoalition dans cette campagne. Et c'est important. Mais parce qu'il est libre, on ne peut plus le retenir dans les liens de la détention. L'homme est désormais libre. رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى جرجفتي يلا يلا كان امول فايم أيوة، الله اكبر جي اغرا تيجي ستان تي بروسي بي دا نان لوتاخ بروسي ام لي ييب بور لي mooy gendarme bu ñëwee ne gisuñ benn outrage kenn waxu ci dara lu ñaaw du bëggaat du ñim àndal ba tax procureur xaw a ndax moom moo yokkoon délit boobu bu njëkk dañu naan refus d'obtempérer et rébellion ci loolu lañ ko laaj mu tontu mu leer naañ xamul lu muy def bi ñëwee Tamba lu bokk ci PV bi procureur jàmbaas yokku ci outrage à agent ban agent ba léegi waxuñu kat la xanaa agent extraterrestre la buñ buñ outragé c'est ridicule. boobu tribunal nee na relaxé na ci totalement Bougane Gueye Dany ndax gendarmerie ci boppam ñoo ko satal bam seti wicc rébellion bi nee na moom am na du dara leeru ko ci rébellion te kenn neewul Bougane

taxawal nga bañ tëj naa ko ci 1 mois avec sursis muy takku walu intercoalition kon tey bugaan guddi na defe naa mais guddeegul war a mën a réere ginaar <laughs> war a mën a jot ànd gaañ yi euh, yëngal gaal gi yëngalaat gaal gi tibb tànk dóor wane lépp leer Sénégal kanam kon ndam lu rëy day la am moom la Bougane am moom la senegal am moom la monde bi am na ñëpp addina bi yëpp ñu ngi doon dëru Sénégal kon Tambacounda bi ñu woon Tambacounda bi ñoo ñàkk a fay leen fi lañ def magistrat yi ñu bëggoon a sanctionné magistrat yi ñu ne mere ñoom ñoom ñu ngi leen Tambacounda tey Tambacounda gàcce ngaalaama Tamba wala na ne am ay juge de valeur ñu am job ñu am full, ñu am fayda ñoo xam ne kenn du jox ay ordre procureur moom dajoon ordre ndax mom ministère de la justice moy patron ministère de la justice premier ministre moy patron Mo moo procureur mom mën na la japp de gouvernement mën na la japp. waaye siège moy ñiaté, ñet ñiaté. Bu xolé Yalla xol sen bàmmeel mel. ne bu ga ni ko tej bo dégg lak la pare na ci. ci kàddu gi mujj. voilà jërëjëf. ci réaction yu mu joxe concernant ak yi yi yaakaar naa ne. donc ñu mën a am Barthélémy Dias ñu xaar ki nga xamante ne moom mooy réaction Barthélémy Dias venez venez venez venez venez monsieur le maire venez monsieur le maire ginnaaw bu ñuy sant yàlla ah, ñu ngi gërëm askanu Sénégal ñu ngi gërëm askanu Sénégal ci seen ah, soutien au président Bougane Gueye Dany soutien tamit bu ñu indi tamit la coalition Sàmm Sa Kàddu luñ ci mooy lu ñëpp a gisoon mu fës ñu wax ko mu am ay

amna ben Samba Boy bu ne moom dafa bëgg doon député ci assemblée nationale aldul calpe lu toll ci juróomi milliard gis ngeen le crime qu'il a posé avec avec euh, préméditation annoncé crime am dem defi crime am te ba tay ken waxul ci waxam Bougane Gueye Dany bi doon jël ndimbal ci turu coalition sam sa kàddu diko yobbu ay concitoyens sénégalais ñu téyé ko jaay ko doole te ñëpp xam nañ ko bu baax a baax

ou def lu baax ñu def la justice sénégalaise a dit le droit Nous félicitons féliciter les avocats de Bougane Gaydani, parce que nous ñu le procureur on a franchement eu mal pour notre pays parce que procureur dafa def une plaidoirie Ken est-ce que dicté la donne récité wala ken xamul est-ce que da donne wax ay euh, wax yu d'une autre planète parce que le Bougane def n'y a ko gis ñëpp ci teg seen bët suba nag incha allah dinañ commencer suñu campagne am nañ bu comme nu le ko le retard bi dû d'abord à la prise d'otage Bougane Bougan mais retard bi c'était aussi dû à l'attaque contre le siège de Sàmm euh, Sa lu ñu t spécimen nañ ci may as a def commune bi ak def département bi et puis commencer nag enchaîner ak suñu campagne di sàkku tamit ci mbokk yi nañu bàyyi xel coalition sàmm sa le 17 novembre ñuy sakku ci askanu Sénégal ñu sàndil seen xob coalition euh, sàmm sa pour une assemblée de rupture mais fu may gën a insister mooy sénégalais yi suñu bëgg am président de la république sénégalais lay waxal parce que fu mu nekk nii amagu président de la république un président dafa ca dafa toogagul bu baax su ngeen amee su ngeen bëggee am président de la république na ngeen voter la coalition sàmm sa

parce que sàmm sa kàddu gis ngeen len fi tay mais wante gis ngeen fi tamit euh, takku wàllu gis ngeen tamit euh, coalition euh, jàmm jëriñ donc di gërëm ñep di gërëm tamit la société civile di gërëm vraiment tous les acteurs qui prônent pour l'avancée de la démocratie sénégalaise tay ñu ñëwoon tey fii fësal sen seen cofeel ci démocratie ñu ngi leen di gërëm leen sant. en français en français quel est le sentiment qui vous anime au sortie de. mais c'est d'abord un sentiment d'abord de rendre grâce à Dieu parce que, comme vous le savez, la prison, ce n'est pas un endroit euh, pour des euh, personnes qui cherchent à œuvrer pour le développement de leur pays. Nous voulons d'abord, à l'entente de ce propos, remercier toute l'intercoalition qui s'est euh, mobilisée ici pour soutenir Bougan Gaidani. On ne pouvait pas attendre un autre verdict. Imaginez-vous un dossier qui n'avait même pas besoin d'être plaidé au tribunal. Les gendarmes ont tous plaidé à décharge. Donc quand les gendarmes plaide à décharge et c'est eux qui ont arrêté Bougan Gaydani, vous comprendrez aisément que la plaidoirie du procureur ne relevait que euh, d'une dictée qui lui avait été transmise pour amuser la galerie. Ce que je veux dire par là, surtout m'adresser au peuple sénégalais. À la dernière élection présidentielle, les Sénégalais ont voté pour un changement. Aujourd'hui, force est de reconnaître, à l'image de ce qui s'est passé avec le dossier de Bougan Gaydani, que la justice il continue à avoir des acteurs politiques qui cherchent à avoir une main mise sur la justice. Parce que je l'ai déjà dit, il y a à peu près 72 heures, un homme qui se trouve être candidat aux élections législatives a posé un acte criminel avec préméditation. Il a annoncé ce qu'il allait faire. Il a incendié un, quartier général d'une coalition où se trouvaient cinq personnes. Jusqu'à l'heure où je parle, c'est comme s'il n'y a pas de justice dans ce pays pour, traiter son cas. Et au même moment, un, patron de presse qui emploie des centaines de personnes dans ce pays, qui est leader de parti politique, qui est investi sur une liste validée par le Conseil constitutionnel, qui se levait pour aller avec ses colistiers amener de l'aide au nom d'une coalition à des populations qui ont été victimes euh, d'une catastrophe naturelle. Cet homme a été pris en otage et cette prise d'otage a affecté la campagne de la coalition Samasakadou. Et aujourd'hui, tout le monde peut constater que si ces gendarmes eux-mêmes ont plaidé à décharge, c'est qu'il y a bien une main étrangère à la gendarmerie qui a voulu prendre Bougan Gaydani en otage avec pour seul objectif de discréditer la liste Samasakadou ou de la déstabiliser. Nous félicitons la justice sénégalaise aujourd'hui qui a dit le droit, mais surtout qui a montré qu'elle a choisi de rester debout. Parce que dans un pays où il n'y a plus de justice, malheureusement, c'est l'anarchie qui prend le dessus. Donc demain, nous allons nous mettre au travail, nous allons mettre les bouchées doubles. Nous commencerons par la commune de Tambacounda, ensuite le département de Tamba. Nous terminerons la région avant d'aller dans les autres contrées du Sénégal. nous voulons vraiment remercier tout le monde et surtout vous de la presse, vous remercier pour votre présence, mais surtout pour votre constance auprès ce qu'on considère comme étant une démocratie craquelée. Merci. bi ñu doon xaar ñu mën une décision allez yoon